li nga def la kenn deful Lamine defu ko mu ngi lay gërëm Senghor defu ko mu ngi lay gërëm sa ñaari baay yu fi des yàlla leen yàlla may wér ñoom itam noo ngi lay gërëm loo def moom laa bëgg wax yow rek yow rek yow mii yow rek gardien de la constitution fusion am na fi kañ ah kañ gouvernant majorité présidentielle am na fi ah kañ waaye yow nag yaa indi dialogue national yow yow yow le chef de l'État ak lan yaay l'homme du programme Sénégal émergence yaay kan yaay l'homme du dialogue national et du consensus Macky yaay kan yaay l'homme des deux mandats waa jàngo Macky yaa kan yaa tombé nag chaque ay nu am pétrole ak gaz ak lan Macky yaa tombé it les coupes d'Afrique wax lu benn coupe rek les coupes d'Afrique yaa ci tombé maquillage kan ah yow nag sa bopp yaa ni Ila Touba ca Xaadimu Rasuul ca sëñ Muntaxa yaa ko Ila Touba <laughs> président Macky yaay kan yaay ki def l'autoroute Dakar Tivaouane à Saint-Louis ca kër mu Sidi Boubacar ak sa xarit ba Seydi <laughs> président loo def ah, yaa ni xale yi ndaw ñi ñoom maa ngi wut place dina li ci dama yokk rek nun la ndax doy na nga président loo def ah état ya xam ne amuñu ko woon à travers le Sénégal en 48 di ko wut yow rek yaa ko def loo def état waaw koo koy tuddee nga di tuddee ak sama papa Abdoulaye Wade loolu yow rek la <laughs> président loo def ah président loolu doon seet ca France ak ci Angleterre di wax saxaar yaa saxaar yee di daw nooy ñan yaa ko indi Sénégal mooy lan yaa indi TER train express régional ak lan président ay Macky Sall waaye loo indi les bourses familiales <laughs> président ndax loolu doy na déedéet président loo defati la couverture maladie universelle ak lan la prise en charge médicale gratuite des personnes de troisième âge ñu ni doy na waaye président xanaa doy na nag nga l'électricité rurale à travers tout le Sénégal <laughs> ñu ni loo ay président Macky nga di déet le port de Sénégal Gambie ndeysaan ma man la man ak lan le programme cent mille logements ni kan la ñu ni la gardien de la constitution yow rek la Seydi Abdou Sy Al Amine la ma wax ko rek dëgg la lu ñu lay teeroo nga ni Abdou Sy lu ñuy teeroo tey Macky bu ñëwee àndandoo leen yéen ñi xam ni te tarixa bi mooy Cheikh Seydi Al Hadji Malick radiallahu taala wax leen ko benn baat rek ñu ne ko loolu koy wax mu ne ñu àndandoo leen na saar bi liir yéen ñëpp ñu leen jërëjëf eh ma kii jërëjëf